xam nga cofeel cofeel la bëgg ñu firi ko luy cofeel cofeel bokkul ak yéem cofeel bokkul ak nobel cofeel toq leer la bu yàlla di def ci xolu jaam lu la mën a yéem ci àdduna surga la ci cofeel mu mel ni kon nag yi ñoo feeñal yépp mu mel ni cofee la ko lal bari na ci loo xam ni ngëlëmte moo ko lal te dañu nekk ci système dañu nekk ci système bu nga xam ni def na lu nekk pour jariñoo àdduna def na lu nekk pour yéem doomu aadama yi wante itam taxul mu àgg ci daraja cofeel